ma ni kon euh, xalaat yëpp nag dem na si Amadou Ba pour mu daal di utu ki nga xam ne moo di le président Macky Sall. alors yegg si exactement itam euh, si ki nga xam ne que moo di arrestation bu Ousmane Sonko ma ni kon Ismaïla Madior Fall nag mi daal détaillé les euh, de l' exécution ma ni kon nag ki nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall mu daal jàpp ni moo di Ousmane Sonko il faut que juge bi mu daal day euh, notifier Ousmane këram Ismaïla Madior Fall nag kàddu la daal di yëkkee exactement jëm si ne sa waaye tam quand est Sonko daal di koy li nga xam ne moo teg loxo ginnaaw euh, mbiram ak ki na xam nekk euh, moo di Adji Sarr ma ni kon ki na xam nekk moo di Ismaïla Madior Fall nag mu koy daal détaillé yaa dikkaan suñu gën yaatoo euh, par rapport condition ak modalité yi nga xam ni itam amaan na ni suñu fa jaadeen daal teg loxo ki na xam nekk moo di Ousmane Sonko si mbiram ak ki na xam nekk moo di Adji Sarr fii si Sénégal c'est exactement itam si leneen si xër gu njëkk bu li nga xam nekk moo di le quotidien la li quotidien mu daal dégg exactement lii nag ak li nga xam ne moo di troisième mandat Macky déroute son monde ma ni kon Macky nag dafa daal di tergiversé ma ni kon Macky nag dafa daal di bett li nga xam ne rek moo di euh, euh, àdduna wëngal képp ndaxte ñëpp yaakaaroon nañu bëgg na li nga xam ne moo di benn ko mandat alors Macky Sall mu daal di jàpp ni ginnaaw mu daal di xalaatee nag ay ati at mu daal di jàpp ni posé candidature am 2024 nag doonu li nga xam ne mooy solution. waaye itam mu daal jàpp ni mandat 2019 bi moo nekkoon dañax li nga xam ne que moo di mandat am en tout cas PDS nag aussi mi ngi daal di saluer li na xam ne rek euh, moo di euh, décision président Macky Sall waaye itam ñi ngi daal di woo sénégalais pour ñu daal dem fekk ci ki nga xam ne moo di Karim Wade tabb ko si atum 2024 Abdoul Mbaye mu daal di jàpp ni euh, je dois avouer ma grande émotion ma ni kon Abdoul Mbaye jamono ji nag il sous Euh, sous le choc euh, sous l'émotion jëm euh, si abandonné bi nga xam ne tam président Macky Sall na ko si troisième candidature am waaye ki na xam ne que moo di Thierno Alassane Sall nag mu daal jàpp ni la démocratie sénégalaise plus forte mu daal jàpp ni nag tolluwaay réew mi nga moo ëpp fuuf li na xam ne rek moo di justement li président Macky Sall daa day biral te itam ñu koy daal rafetlu lool ba daal si yegg ki nga xam ne que moo di Moundiaye mu daal di fare si li moo di ONG 3D mu daal jàpp ni la question du mandat est définitivement réglée mu daal jàpp ni itam lu jëm si wàllu ko mandat gi réglé nañ ko de manière définitive bu si kenn si kenn aussi daal di dépassé lu daal di ëpp li nga xam ne que moo di ñett waaye ki nga xam ne que moo di Macky Sall nag ma ni kon koy daal di euh, jëm si la xam ni itam euh, biral na ko si li nga xam ne que moo di troisième candidature ma ni kon Euh, ki nga xam nekk moo di Macky Sall nag euh, va sortir par la grande porte euh, justement jëm si wàllu wu nu mel yegg si exactement itam si Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany nag xamee ngeen ko lool mu daal di fare fa xam ni itam mooy daanu ko gëm sa bopp Bougane Gueye Dany mu daal di jàpp ni itam. président daal puisque Macky Sall li nga xam ni itam biral na ko moom itam mi koy daal rafetlu bu baax a baax a baax a baax Bougane Gueye Dany moom itam euh, mu daal day euh, jàpp ni itam mi ngi daal di rendre un ki nga xam ne que moo di président Macky Sall donc euh, ginnaaw mu daal li nga xam ne moo di booba di candidature Bougane Gueye Dany mu daal jàpp ni itam Macky lam def rek la wala daal day def ba 2023 di nga daal di dox ni ki tey du daal di toll si nga xam ne que moo di 150 000 candidats nag ñoom ñoo Euh, euh, prêt euh, pour dem conquérir seen première diplôme universitaire man ni kon nag candidat yi dañ ji bëri na lool en tout cas bonne chance li nga xam nekk moo di ñi nga xam ne itam ñooy daal di passé li nga xam nekk moo di boobu de bac yegg si exactement itam si leneen bés bi lu jour la mu daal di ko exactement bés bi nag ak Macky pas candidat en 2024 il part ma ni kon Macky nag ma ngay daal di dem nekkul candidat sa tup 2024 moom ki nga xam ne moo di Macky Sall ma daal jàpp ni décision bi na xam ni itam jël na ko dina daal di bett ñu bët yi alors aussi la bataille de succession s'annonce à pair entre Amadou Ba Aliou Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo ma ni ko ñoom ñett nag jamono jooju ñoo gën a mieux placé peut-être pour jël ki nga xam nekk moo di ma Macky Sall diggante ak Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba ak ki na xam nekk moo di Abdoulaye Daouda Diallo euh, chronique de wax waxeet devenu euh, euh, wax jëf fa alors Macky Sall ma ni kon wax waxeet wi na xam ne itam ñu ko ko di waxal boobu ba tey ma ni kon Macky Sall wax na wax jëf la daal di def fa alors

jàppale ni tamit ministre gu euh, ministre gu njëkk bu bés bu le jour ma ni kon ki nga xam nekk moo di Macky Sall nag génn na par la grande porte yegg si exactement itam si leneen bokk na si xër gu njëkk bu li nga xam nekk euh, moo di ko euh, quotidien mu daal exactement lu ko quotidien nag ak li nga xam nekk moo di la bombe Sall présidentielle non partant pour 2024 Euh, Amadou Ba euh, était dans la euh, confidence ma ki na xam ne moo di Amadou Ba nag xamoon na lu nu mel waaye itam une non candidature jalonnée de polémique précédent heureux pour les deux mandats. ma ni kon ki xam ne moo di euh, président Macky Sall jamono jooju nag ma ni kon Amadou Ba jamono ji mooy gën a dessiné wu pour mu jël li nga xam moo di place ki nga xam ne moo di Macky Sall waaye jàppee ni itam euh, boobu de li xam ne moo di noo candidature nag euh, tax na ba sénégalais ñu daal di li nga xam ne moo di noyyiwaat bu baax baax baax baax décision bi nga xam ni itam président Macky Sall jël na ko daal teg lépp si suuf mi ngi si xët gu ñëkk bu la ko jënti kànn xam ne moo di discours à la nation bu ki nga xam ne moo di le président Macky sal ñu daal di jàll si le mandat mu ratique exactement le mandat nag ak li nga xam ne que mooy élection présidentielle de 2024 Macky renonce à sa candidature et surprend son monde ma ni kon Euh, boobu rek candidature teg na ko suuf waaye itam mi ngi daal day euh, bett lool li nga xam ne moo askan wi nga xam ne itam ñu bëri yaakaaroon nañu ni bëggoon na li nga xam moo di am benn comme mandat euh, xam ne tam na ko ne moo di candidature mu daal jàpp ni il n'est a mën a xam ne moo di pression yi nga xam ni itam boobu ba tey woon nañ ko daal war a mën a amal si kaw ki na xam ne moo di le président Macky Sall alors euh, candidature de 2024 Macky lâche son clan man ni ko nag ñu si ëpp nag taxawoon neen fa nga xam ne itam mooy daanaka benn bokk yaakaar ne si fi itam ñu daal di ànd ki nga xam ne moo di Macky Sall si yooyu li nga xam ne moo di élection alors euh, Macky nag man ni kon euh, bàyyi na li nga xam ne moo di clan wi nga xam ne itam ànd ak ak ñoom jëm si boobu de li nga xam ne moo di échéance man ni kon ki nga xam ne moo di waa APR na jamono ji noonu daal di am li nga xam ne moo di méttel lool jëm si ki nga xam ne moo di président Macky Sall de man ni kon réaction yi benn la nga xam ne itam moo di euh, sa diwaanu permanence bu APR ndaxte jàpp ne ni tam Macky Sall li na xam ne itam biral na ko di leen daal bett lool te itam ba léegi jàpp na ni euh, président Macky Sall rek mooy seen candidat te itam képp ki nga xam ne itam yóbbu na ko pare nañ pour daal si ànd ak maanaam euh, pare nañ pour daal ak li nga xam ne moo di le successeur potentiel bu ki nga xam ne moo di le président euh, Macky Sall. léegi itam mi ngi si xët gu njëkk bu enquête mu daal di exactement enquête nag ak ki nga xam ne moo di Macky Sall toujours Macky Sall par la grande porte. ma ni kon ki na xam ne que moo di Macky Sall nag euh, jaar na si bunt bu mag bi euh, ginnaaw rek bu mu daal di euh, li nga xam ne que moo di jiite li nga xam ne que moo di sénégalais yi si diiru li nga xam ne rek moo di fukki at ak ñaar ma ni kon Macky Sall génn na par la grande porte si ëpp na ñu koy daal lu bu baax a baax baax baax baax en tout cas histoire bind na ki nga xam ne que moo di président Macky Sall dignité am ak li nga xam ne que moo di kàddu gi na xam ne itam respecté na ko. ma ni kon aussi sama message à la jeunesse aussi passe na ma ni kon euh, réaction de Youssou Nour Ambalo Youssoufou et cetera euh, chronique d'une d'une troisième candidature ma ni kon ki nga xam ne moo di Macky Sall nag euh, jamono ji kenn doot ko fàtte ci histoire politique bu Sénégal si lu am solo yi nga xam ni itam def na ko naka démb ma ni kon Youssou nag ak ki xam ne moo di Ambalo wax na waaye itam ak Youssoufou aussi ma ngay daal day wax jëm si ki nga xam ne moo di décision wu am solo yi na xam ni itam.

a résisté à la pression des courtisans pour agir en homme libre maanaam nag la président Macky Sall nag euh, euh, euh, li nga xam nekk mu ñu ko doon tekk benn pression bokk na si waa APR pour mu daal nekk li nga xam nekk moo di candidat naka la daal di génnee si boobu dañoo xam nekk moo di pression Euh, jël décision boppam pour daal day bañ a nekk li nga xam ne moo di candidat waaye itam les coups et contre-coups d'une décision surprenante man ni kon nag waa APR lu nu mel neexu leen ba tey parce que suñu sañoon euh, ki nga xam ne moo di Macky ba tey daa nekk li nga xam ne moo di euh, candidat Macky Sall trajectoire d'un nouvel exemple politique man ni kon trajectoire am ak fi nga xam ne itam jaar fa Euh, dugg na à jamais histoire politique bu euh, Sénégal euh, de l'image erronée écornée du chef de l'État à la Renaissance scène de liesse devant le palais ma nag démb si buntu palais ba nag askan wa rafetlu leen lool li nga xam nekk moo di li nga xam ni itam moo daal di jug jëm si moom alors